lu tuuti lu mën lu bari ñaari téeméer par weer juróom ñaari dërëm bis bu ne ci lu tuuti loole lu Touba ci kanam jaar ba def lii ci Touba ci diirub ñetti at ay bërëbu fajjukaay ak ambulance jàppale lu toll ci téeméeri dara di defar bâtiment ca université cheikhul xadim ànd ko addiya téeméeri million leeral dëkk bi ci ay lampadaire defaraat mbedd yi ci jamonoy nawet ay camion yu balit naatal Touba ci jëmbatum garab ñaari camion citerne ak ambulance jox ko sapeur pompier benn pick jox ko safinatul amaan yóbbu ndox ci sancaan yi jënd juróom benni pompe forage ñaar fukki réservoir yu juróomi junni litre dimbalante sociale def na ci lu ëpp juróom fukki million ñeent fukki million mu tàbbal ko ci opération jële fi coronavirus lii lépp ndax yow yow mi joxe weer ne yaa ko def ay ca murit liggéey bi bu laal suuf ndax liggéeyub Serigne Touba la. liggéey bi moom nañ ko yëkkati bu doon lu ñu yëkkati bu mu laal suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi loolu nag bis ba ci la jëm jëwul fer bis ba ci la jëm kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf defal jazz étoiles jazz liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba